بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أم القواعد ومن توت عليه من العقائد كن نيوغي تي سونو بيندوب تيرب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين كتاب أم القواعد لي موي تيرب نداي كنويا ومن توت اك عليه تي من العقائد تي اي باس باس ummil xawaacid dañ ciy jublu laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yajibu dana war waaye man nga ne dana sax rek lillahi ñel yàlla al wujudu am nga wal qidamu ak jiitu ga kazaniki nii albaqaawu des ga wal qinaa ak doylu ga al mutlaxu bari bu ñu joyal amma matale na ci wàllu tawxiid ci njàngaleem asaayire yi dañuy wutal ñaar fukki melokaan yoo xam ne dañu jàpp ne melokaani mat la dafa sax ci wàllu yàlla da caa war nga xam ne mënu caa ñàkk am ñaar fukki melokaan yoo xam ne ñooy safaani ñaar fukki melo yii ñu jàpp ne dafa jomb gaane mënta am ci wàllu yàlla am loo xam ne jaayis la lu dagan la ci wàllu yàlla lu mën a am la lu mën a ñàkk mu njëkk ci ñaar fukki melokaan yi nga xam ne dañ ne ak amam ci yàlla dafa war nga xam ne mënta ñàkk waaw yàlla melokaanoo ñaar fukki melokaan yi lu mënta ñàkk la ñaar fukki melokaan yooyu ba ci jiitu mooy alwujuudu alwujuudu mooy nga gëm ne yàlla ci boppam ku am la du ku ñuy wax rek te amut loolu jomb na yàlla doon koo xam ne dañ koy wax rek te amut loolu lu jomb la lu mënta nekk la ci xel kon yàlla ku am la te kenn amalu ko moom ci boppam it amalut boppam wal xidamu ak jiitu ga dañ caa jublu ne yàlla doonut koo xam ne dafa sosu maanaam moo fi jiitu lépp te ak amam tàmbaliwut ba dara amagutoon la amoon ak amum amut fenn fuñ naan fala tàmbalee mooy kon sosowut rekk kazalika nii albaqaau mooy ne yàlla du jeex mukk amut fu muy yem amut fuñ naan bu fa yeggee fa lay yem day wëy di continuer di am di am rek am ngoo xam ne amutub yemukaay walqinaa mooy doylu ko dees ko tudde it alqiyaamu bi nafsi moo yàlla kat moo sàkk lenn lu ne moo sàkk kenn ku ne moo sàkk fenn ku nekk waaye soxlaalul kenn mbaa lenn mbaa fenn dafa doylu ci lépp rek te lenn lu nekk ak kenn ku nekk ak fenn fu nekk soxlaal yàlla nga xam ne mënta ñàkk yàlla waaye yàlla moom aajo wut jëm ci kenn aajo wut jëm ci lenn aajo wut jëm ci fenn kon ñeenti melokaana ngoog alwujudu alqidamu albaqaawu alqina wa xulfuhu aku wuuteem li xalqihi ñeel mbindeefam yi bila misaalin ci lu dul misaal bokk na ci melokaani yàlla mooy wuute gum lim sàkk lépp yàlla moo sàkk kenn ku nekk yàlla sàkk lenn lu nekk yàlla sàkk fenn fu nekk waaye nuróowu ceeg lenn ci lim sàkk wa waxdatu zaati ak weetuk jëmm ji wa wasfin aku melo wal fiaal ak jëf ja yàlla kenn rekk la yàlla kenn la ci jëmmam yàlla kenn la ci melokaanam yàlla kenn la ci ay jëfam kenn la ci jëmmam mooy jëmmam ji moom rekk moo ko am te kenn la limuwut benn yàlla rekk am kenn la ci ay melokaanam mooy ay melokaanam moom rekk moo ko am ni mel moom moom rekk ni mel kenn la ci ay jëfam mooy man nga ne moom rek mooy jëf lu dul yàlla rek jëfi yàlla wa xudratun kàttan iraadatun coobare ilmun xam-xam xayaatun dund samcun dégg kalaamun wax basarun gis zi yii waajibaatun woy war ci yàlla mu melokaanoo leen yàlla amee kàttan goo xam ne yemut fenn amul dara loo xam ne tële na ko lépp la man yàlla amee na coobare joo xam ne lépp lu muy jëf ci coobareem jooju la koy jëfee amul lenn loo xam ne moo koy gàcci mbir munu koo ñàkk def wala lii munu ko ñàkk bàyyi waaye lu muy def rek ci coobareem la koy defe amul lu koy forcer mbaa lu koy tënk ci mbir nga gëm ne it yàlla amee na xam-xam melokaanu xam-xam mooy lépp la xam te lu ne nam doone la ko xame dara du ko ci rëcc lum tuuti tuuti xayaatun mooy nga gëm ne yàlla amee na dund ga yàlla ci moom te dund la goo xam ne day sar di wéy rek dund la goo xam ne dee du ca topp ba mukk samun mooy nga gëm ne yàlla am na dégg ba yàlla ci moom lépp lay dégg kalaamun mooy nga gëm ne yàlla day wax mutakallim basarun mooy nga gëm ne yàlla am na gis ba yàlla ci moom melokaan yii mu la mujj wax li tàmbale ci xudratun iraadatun ilmun xayaa samun kalaamun basar juróom-ñaar lañ te juróom-ñaar yi benn bu ci nekk day jur benn ndax xudura kàttan aw melo la bu nekkee ci jëmmu faw ñu wooye ko ko ne bu nekkee ci jëmm ñu wooye ko ko muy muriid ilmun aalim xayaatun nga ne xayyan sam'un ngane sami' kalam ngane mutakallim basar ngane basir kon boobole juróom ñaari melokaan yi ak benn bu ne ba muy jur muy ñaari juróom ñaar muy fukk ak ñent boo ko booleeg juróom benn melokaan ya nga njëkkoon wax kon muy ñaar fukki melo yi nga xam ne ñoo war ci wàllu yàlla yàlla melokaanoo leen mënta ñàkk seeni safa nag moo jomb ci yàlla moo tax mu ne wa yastahilu dana jombu diddo hadihi sifati safanu yile melo alcadamu te mooy ñakk alxudusu ak sosu sali lil hadisati ñeel na way sosu yi ñàkk mooy koo xam ne amut dañ koy wax rek te amut loolu jomb na ci wàllu yàlla yàlla amam gi dafa leer nañ ñi te set wecc xel mu sell mu ne daal di nangu ne yàlla ko am la am xel munta nangu mukk ñu ne yàlla dañ koy wax rek te amut loolu xel mu sell mënu koo nangu ñaareelu melokaan bi mooy sosu sosu mooy am fu mu tàmbalee kooku it jomm ne ci wàllu yàlla yàlla dañ laa waxoon ne la moo fi jiitu lépp ba dara amagutoon la am ak amam tàmbali wut kon sosu wut mu ne sosu ak ñàkk daal dembam yàgg nga ñàkk loolu daal moom ñi sosu ñoom ñoo ko moom waaye yàlla mi nga xam ne sosu wut loolu jomm na ci moom kazaniki ni alfana jeexga waliftixaaru aajo wooga odda nan ko ñiwaale bokk na ci melokaan yi nga xam ne jomm na ci wàllu yàlla mooy jeex mooy am fu muy yem loolu jomm na ci wàllu yàlla yàlla amul fu muy yem bokk na ci melokaan yi jomm ci wàllu yàlla mooy aajo woo jëm ci lenn lu mu sàkk mbaa kenn ci ñi mu sàkk mbaa fenn ci fi mu sàkk kooku jomm na yàlla danga waxoon ne aajo wut jëm ci kenn mbaa lenn mbaa fenn te lenn lu nekk ak kenn ku nekk ak fenn fu nekk aajo woona jëm ci yàlla wa an yumaasila ak muy yamoonteeg mbindeef yàlla yamoonteeg lenn ci li mu sàkk wala kenn ci ñi mu sàkk wala fenn ci fi mu sàkk loolu jomb na mënta nekk wa nafyul waxdati ak dàq wéet ga dàq wéet ga mooy yàlla limu doonoon ñaar yàlla wala ñett mbaa lu ko ëpp kooku it jomm na ci wàllu yàlla yàlla kenn rekk la moom rek yàlla te kenn du yàlla ku dul moom ajizun lottu karahatun sibeel wa jëhlun réer wa mamaat ak dee yàlla tële dara kooku jomm na ci wàllu yàlla danga waxoon yàlla ku amee kàttan la goo xam ne yëmut fenn dara tëw ko xanaa lu coobareem aju wut ci amal ko rek waaye dara tëw ko kon yàlla tële dara kooku jomm na ci wàllu yàlla karaahatun sibeel mooy jëf ci kaw fors yàlla di jëf loo xam ne coobareem ajuwu ca da koo mënta ñàkk def kooku it jomm na ci wàllu yàlla yàlla lu muy def lu ci coobareem la koy defee jëxalun réer yàlla umpule dara ci li mu sàkk mbaa ci ñi mu sàkk mbaa ci fi mu sàkk kooku it jomm na ci wàllu yàlla wa mamaatun mooy dee dee it jomm na ci yàlla sama mun mooy tëx tëx jomb na ci yàlla wa bakamun ak luu luu mooy ñàkk mën a wax tëx mooy ñàkk mën a dégg yépp jomb na ci yàlla aman gumba moom it jomb na ci wàllu yàlla sumaat noppi ne pat kooku it jomb na ci yàlla ndax loolu mbirum mbindeef la waaye sumaat moom boo dee wàññi melo yi doo ko wàññiwaale kon it boo yeggee fii ci ajizun karahatun jëhlun mamaat samam bakkan amam dangay wax ne juróom-ñaari melo la te melokaan bu nekk it day jur benn ndax ajisa bu nekkee ci jëmm faaw ñu di ko woowee ajis waaw karahatun bu nekkee jëm faaw ñu ko doo woowee karih jahlun jahil waaw mamaat mumit mhm. samam nga ne asammun bakamun nga ne abukamu xaman nga ne ama kon juróom ñaari melokaan yooyu jomm na ci yàlla bu ci nekk it melokaan ba muy jur jomm na ci yàlla kon moom it boo boolee ñaari juróom ñaar ak juróom benn nga njëkkoon waxit muy ñaar fukk yajuusu dana dagan fi xaqihi ci xàqam moom yàlla ficlul mumkinaat jëf mindéef yi bi asriha ci mboole seen wa tarkuha akuk bàyyeem fil adamaati ca ñàkk ga kon weesu nga melokaan yi war ci jëm yàlla ji weesu melokaan yi jomb ci jëm yàlla ji yaa ngi toll ci li dagan ci yàlla li nga xam ne moo dagan ci moom daal mooy jëf mbindeef yi mbindeef yi mu bind mooy nun ñii mu bind nu ak mu ñàkk noo bind ñoo yemoo képp dafa dagan rek maanaam def geeg bañ koy def ñoo yemoo coobareem moo aju ci mu amal nu rek moo amal nu waaye du loo xam ne lu mënto na ñàkk la wujuuduhoo amam gi moom yàlla lahu ñeel na ko dalilun tegtal qatiun buy aji dog te dalil boobu mooy haajatu kulli muhdasin wala haajatu kulli muhdasin aajowoog lépp lu ñu sos li saanici ñeel aji sos nee na amug yàlla gi day am na tegtal bu wóor bu koy tegtale te tegtal bu wóor boobu yi nga xam ne dana ko tegtale mooy lépp lu sosu rek dafa aajowoo ko ko sos lépp lu sosu dafa aajowoo ko ko sos man nga ne lépp lu ñu tabax dafa aajowoo aji tabax ku ko tabax lépp lu ñu bind dafa aajowoo aji bind téere bii ko ko bind nga ne diw kon diw moomu am na am gi mu am moo tax mu mën a bind téere bii waaye boo doone téere bii de ku ñuy wax ibnu asir moo ko bind ba noppi bëgg wëlbatiwu ne ku ñuy wax ibnu asir amut dañ koy wax rek kon dañ lay laaj ku bind téere bi ndax ibnu asir mënta ñàkk am ba noppi amal téere bi ginnaaw moo amal téere bi moom ci boppam kon am na kon nag yàlla mbindeef yi nga xam ne ñoom nga gis ci kaw suuf si te indiwuñ fi seen bopp asamaan seek suuf seeg garab yeeg yépp nga gis dafa am ku leen amal kookee leen amal nag dafa am ba noppi doog leen a amal bu amutoon ana nu muy amale kon yàlla ko am la la waxadasat doonte sosoon na al akwaanu kawnu bi walla mën nga ne al akwaanu mbindeef rek waaw bu ñu waxee fii mbindeef jubluwuñu nit ñi rek waaye lu dul yàlla rek mbindeef la li nafsiha ñeel seen bopp laj tamaa kon mu daje ak tasaawi yamu war rujuhaanu akuk lëng ak tasaawi war rujuhaanu daal nu ñuy dajee loolu dana la jaaxal mooy ñaar yoo xam ne ñoo yamoo képp ba noppi benn bi lëng moroom ji bo indi won say balas yi ngay pese tek bol fi tek bol fi bol bu ne nga tek ci ab liver xam nga ñaari liver yi ñoy mo kon ben wur ci wat morom ji ben du daanu ben liver ba jekki jekki daanu wat morom ji te dara doli ko ci lol dal xel na ngugo mom niki non bu fekkone da nga tek ci ben bu ne kilo ñaari kilo yi kon dañu wara dañu wara leung manam dañu wara Euh, tolloo maanaam benn du ci daanu daal la bëgg a wax benn kilo ba jekki-jekki daanu te dara dollikuwu ci du da tibb suuf def ci wala danga caa teg wala da kii loolu xel nanguwu ko waaw xel nanguwu ko li xel nangu mooy moom ñoom ñaar benn du daanu bu fekkee nag da jël leneen nga jël aw xeer teg ko ci benn bool ba kon booba booba mën naa daal di lëng loolu nag xel nangu ko kon boo bëggoon wax ne mbindeef yi ñoo sos seen bopp loolu kon dee su ko mën a dégg xel du ko nangu ndax kon day mel ni ñaar ñu yamonte woon képp tolloo benn ba jekki-jekki na ëpp morom ja doole te laneen dolliku ca jeneen dolli jeneen doole walliku wusa te wasaate lii mu xaalun lu ñu jombal la lii lu jomb la lu xel nanguwut la wa xuduusul caalami sosuk caalam bi caalam bi mooy lu dul yàlla rek mooy mbindeef yi waaye mooy lu dul yàlla min adasil araɗi mingi tukke ci sosog araɗi ma talasumin andakub taqo li tegtale ni mindefi dañoo sosu mooy li ñuy tuddee araɗi mooy yooyu moom xam nañ ne dañoo sosu bu baax a baax a baax te loolu dañuy gis ni mindeef mënta tàggoog yooyu mindeef mënta tàggoog li ñuy wax harad harad lu yaatu yaatu la jógoo ka toog yëngutoo ko dal njool ak gàtt ñaaw ak rafet yooyu yëpp arad la te yooyu gis nañ ni mbindeef mënta dem ba ko mbindeef dafa taxaw moom te yooyu moom wóor nañ ñu ne dañoo sosu ginnaaw loolu ak sosom wóor na kon képp koo xam ne mënoo tàggoog loolu it dañuy jàpp ne kon yow ba tey dangaa sosu lawlam yokku doonte nekkutoon alxidamu jiitu ga wasfahu di meloom wa lazima kon war xudusuhu sosom ga dawrun dawru tasalsulun ak tasal sul xotima boobu war a leef na ko yàlla bu fekkoon ne doonut koo xam ne sosuwut nga xam ne amut fu mu tàmbalee kon day danga wax ne sosom gi de kon danga ci indi ñaar yii mooy li ñuy tudde dawru ak tasalsul waaw mooy kon yàlla danga wax ne bu fekkoon ne danga bëgg wax ne yàlla ci boppam dafa sosu dafa sosu kon dañ lay laaj kan moo ko sos boo nee dafa sos dañ lay laaj ku ko sos ndax lépp lu sos rek am na ku ko sos dañ lay laaj anakan moo sos yàlla boo waxee ba ne diw sàngam moo ko sos dañ la laaj diw sàngam moomu anakan moo ko sos nga ne diw sàngam diw sàngam moo ko sos dañ la laaj diw sàngam moomu kan moo ko sos waaw loolu mooy dawru dawru mooy jëmm ji nekk faa'il nekk maf'ulun bihi waaw moom jëmm ji moo amal lii waaye moom kee moo ko amal nekk faail nekk mafoolum bihi tasalsul nag mooy loola di dem rek di dem di dem rek nga ne paate njaayi moo amal eh, moo bind moor joob waaw paate njaayi moo bind moor joob waaye demba kebe mi moor joobu ko bind demba kebe saaliw faala ko bind saaliw faal ma jaxatee ko bind ma jaxate muudu baa ko bind loolu dem di dem di dem rek loolu mu tudd tasalsul waaw te loolu xel nanguwu ko li xel nangu daal mooy jenn jëmm joo xam ne walla kenn koo xam ne moo amal lépp te moom kenn amalu ko te loolu moo wér mooy yàlla moom moo amal li am lépp te moom yàlla nag kenn amalu ko amalul boppam it nag law am kana doonte jàppandiwoon woon na alfanaa u jeex ga lantafaa kon dàqu alxidamu jiitu ga bu fekkoon ne danga wax ne yàlla day dana dem ba mu yàgg mu am fu mu yam maanaam ak amam continué wut waaye dana masa jeex kon day dañu lay wax ne la nga waxoon ne yàlla sosuwut rek moo dañ ndax dem ba mu yàgg nga am foo yem kooku ku sosu moo koy def koo xam ne sosuwut nag du fu mu yem te da nga waxoon ne yàlla sosuwut law maasala doonte te na ak alxalqu mindéef xuduusuhu kon sosam nga in xatama war a lef na ko bu fekkoon ne da nga bëgg wëlbatiku wax ne yàlla moom mbindeef yi ñoo yem wala nga yemoon yemale koog lenn ci lim sàkk rek kon da ngaa bëgg wax ni yàlla dafa sosu ndax mbindeef yi moom dañoo sosu bu wér kon lu yem ak ñoom rek da sosu te loolu jomb na lawlam jëpp doonte warutoon wasful xinaa melow doylu iftaxara kon mu woo lëxoo ñeel ko mu fekkoon ne da ngaa bëgg wax ne yàlla kat doyluwut ci boppam kon da bëgg wax ne yàlla aajowoo na jëm ci lenn li mu sàkk te loolu jomb na moom it lawlam yakun doonte nekkutoon bi waaxidin di kenn lama qadara kon du attan yàlla bu fekkoon ne doonut benn yàlla dong nga xam ne moo amal li am lépp moom rekk yàlla te kenn du yàlla kenn du yàlla ku dul moom kon limu man lépp ana num koy mane law kaana fihima alihatun illa la fasadata nee na bu fekkoon ne ñaar yàlla am nañ fi kon yàqu-yàqu yi dana bëri jafe-jafe yi dana bëri xëccoo yeeg Eh, jàppal bàyyi dana bëri seetal réew mi nga nekk rek buñ ne woon léegi réew mi ñaari président la ñuy jël waaw ñaari président ñoo fay am ñu boole leen ca pale ba ñuy ñaari président réew mi yëngu dootu fi dañ ay jafe-jafe ay xëccoo ay xeex dara du jaar yoon benn région sax de buñ ko bëggoon a wutal yaari gouverneur waaw wala benn dëkk ñu wutal ko yaari maire wala benn quartier ñu wutal ko yaari chef de quartier rek ay jafe-jafe am kër gi sax bu ñu ko bëggoon wutal yaari borom rek ay jafe-jafe dana fi bëri moo tax yàlla kenn rek la moo tax mu mën a lijjanti li muy lijjanti lépp law lam yakun doonte nekkutoon xayyan di aji dund muridan di aji namel aaliman tey aji xam wa qaadiran aji am kattan lamaara ayta kon doo gis aalaman mbindeef yàlla day bu fekkoon ne boole wutoon melokaan yii nekk kuy dund dund goo xam ne gu sax dàkk la amut fu muy yem dund nga yàlla ci moom doon koo xam ne muriit la ku amee coobare la doon koo xam ne lépp la xam te lu ci ne nam doone la ko xame doon koo xam ne ku am kàttan la goo xam ne yemut fenn kon day nee na kon doo gis benn mbindéef buy dox ci kaw suuf ndax boole gum boole melokaan yi moo tax mu mën a sàkk mbindéef waaye ku boolewut melokaan yi kon doo mën a bind mbindéef te kon yàlla boole gum leen boole moo tax mu mën a amal mbindeef mbindeef yaa ngi nii noo ngi nii wattaali aji topp ja fii sittil qadaaya fi sittil qadaaya ci juróom-benni ataya baatilu neen la xataan ci lu dog wattaali fii sittil qadaaya baatil mooy li tàmbalee rek law lam yokkul xidamu wasuhoo lasem bu nangum amutoon nangam am loolu daal daa mel ni waxin woowu ñu ko gën miine ci ñiy jàngale mantiq ahlu mantiq daal ñooy wax ne nangam bu amutoon nangam am bu doon kon ak nangam nangam am waaw bu dul woon ak maral wi rek kon tool yi baax nangam nangam mu ne nag andi gi mu ko indi fii nee na wattaali fi sittil xadaaya baatilun neen la rek waaw li may wax dëgg-dëgg loolu mënta nekk law lam yokkul xidamu loolu ci bopp mënta nekk waaw neen la caaxaan la xatan ci lu dog muqaddamun sarte isan kon mumaasilun aj yamonte la ak jawaab neena kon day nga gis ne sarte bi ak jawaab bi ñoo yamoo képp waaw sarte bi mooy law lam yokkul xidamu waaw loolu mooy sarte bi jawaab ji mooy wasfahu lasim déet law lam yokkul xidamu wasfahu mooy sarte bi lasima xuduusuhu mooy jawaab ji waaye yooyu yëpp la ne neen la rek mu mu sart bi ak jawaab bi ñoo yemoo képp loolu mënta nekk wasamcu dégg ga wal basaru ak gis ya wal ak wax ja turaamu def na ko sàkku bi naqali ca tuxal ga ma matam yàlla amee dégg yàlla ci moom ak gis ba yàlla ci moom ak di wax wax ja nga xam ne moo yàlla ci moom loola day ànd ak matam moo tax lu mënta ñàkk ci moom la la wistaxaala doonte jomboon na mumkinun mbindeef aw wajaba wala mu war kon aw jaba waral xalbal xaqaaxi walbati dëgg-dëgg yi lusuuman ceg waral